numéro Kouthia ba tey jii aw ma ko jour bu ma Kouthia dàqee jour boobu laa supprimer numéro Kouthia ba tey tey tey aw ko bu dee lu may wax du dëgg yàlla naa fekk sama yaay fu mu tëdd yàlla na ma yàlla rey jour boobu laa gëj a am numéro Kouthia ba jonnos yàlla tey ndax man ku ma def lu metti ma bàyyi la man noonu lay dunde su may ànd ak yow ngor rek la ñuy ànd mais man dekk nga def ma lu metti lu ma teree nelaw man dama lay bàyyi ndax Kouthia jamono ji may dàq metti woon na ci man nga génn télé ñëpp commencé laa xam mu dàq la ndax daf laa bëgg a may copain yam nga bañ mu ne ma TFM bëggatuñ la dàq nañ la ci laa gëj a wax ak Kouthia ba tey jii nii te terewul Kouthia dañuy dajale si télé bi fu ma ko fekkee dama naan ko mais père nu mu demee mu ne ma waaw ça va ça va amul fit suñu bëti ñeent def naa lu ne pour Kouthia bëgg ma pour ñu séq jàmm ndax man maa ngi xool rek bés bi ma Kouthia indee ca télé ba mm-hmm. Kouthia fu ma ko fekk damay ñëw fekk ne ko mais démb gis naa la mais toj man duma ma seetaan Kouthia mais fu ma ko fekk dama naan ko mais seetaan naa naan waay dëgg la kay Kouthia du ak man mm. da ngay éviter fu ma Kouthia bu ma njëkkee gis sax duñ daje te man fu ma séenee fee Kouthia au lieu ma wiiri comme moom nu muy def man damay dem si wetam pour nuyu ko romb man duma ko daw defuma ko dara mais Kouthia fu ma seen daw Kouthia buñ mbëkkantee ci télé bi rek dafa ma yéex a gis mm-hmm. kon Kouthia moom du sama xarit mm-hmm. bokkuma ak moom yoon ci réseau lañ daje bañ dajee ci réseau xàmmewuma ko gisuma ko mm-hmm. kon warul taxaw di ma waxal dara Kouthia bu ngeen seetloo émission bu mu def tudd na ci sama tur mm. man émission bu ma def gërëm naa ko ci nee naa gannaaw yàlla ak yonentu beeg Youssou Ndour Kouthia la loolu même bu dul dëgg ci sama xol dama koy wax chaque jour te Kouthia émission bu def rek tudd na si sama tuut maa fi indi ñoo xam ne ci lëndëm laa leen jëlee man Kouthia ci ban lëndëm la ma jële ki leen dajale fii muy yéen ñëpp Medoune Diouf la tudd Medoune xam na ma bu baax xam samay mbokk xam fi ma bokk man Kouthia fekkuma ci lëndëm Kouthia daf maa fekk may xale bu jigéen mel ni ma war a mel mu jël ma di ma jàppale am lu lal jàppale bi ba ma demee ba xam ne kii jàppale ma te yàlla tax am na lu mu bëgg ma bàyyi ko su saaga daga noonu dinaa ko wax lu metti tey mais du ma saaga ndax ñu baax ak may seetaan ñu bon di ma seetaan tey dafa laal sama xol su waxoon caga rek ma baal ko su waxoon Amina dëmm la ma baal ko mais le fait mu yeewu naan Amina ak Viviane dañoo mës a marié wu man fii Sénégal ko fi nekk giwin yaa xam man ku ma fréquenté xam ne giwin nga man dama lay bàyyi man Viviane su ma ko xamaloon giwin du ma ànd ak moom barki Seydouna Muhammad peut-être leneen moo ñu boole am naa droit su ma mënatul a nekk yow mais dama lay bàyyi kenn du ma forcer kenn mais man Viviane ci xuloo bi ñu bëree bëree bëri dañuy ñëw ah, waxoon nañ la ko yaay ànd ak ku ne ma ne leen mais yéen kii xamu leen ko man li ma joteek moom yéen ñëpp xam ngeen ko mais ay affaire mais kii waa du lu sit du nangam ma ne leen man de kii bu dee mës naa koo gis mu laal dorog man yàlla naa yàlla bu ma dajee ngërëmu sëriñ Touba lu may wax dëgg la de man faale wu ma kenn nit nag su xamee ne nii nga mel nam mel mën na koo nëbb pour nga pour mu bañ nga xamal ko ko mm-hmm. kon man xamaluma ko bon moom li may coow yëpp baat yi ma wax TFM du ma tux duma naan du ma caga du giwin loolu yàgg naa koo wax ba may ànd ak moom Viviane loolu sama sama slogan la man mhm. da ngeen di dem ngeen xool émission yu njëkk yi ma def sans Viviane mën naa mer nag ndax lu ne ci xol feeñ ci kanam man ku ma xam ni giwin nga man duma ànd ak yow man je m'en ci lu nit doon sama yoon wut ci seen giwin ku nekk giwin ak ku nekk goo jigéen ku baax ku bon man sama yoon newut ci ñoom man xam nga lu ma ñor du man je suis casanière du ma jël sama àddina xañ sama bopp boîte nu mu neexee xañ sama bopp restaurant nu mu neexee xañ sama bopp ay xarit nga xam ne toog ñu lay waxtaanal nu mu neexee ma tàqale sama bopp ak lépp toog benn imbécile bu mel ni ku caa di ma yàq man te xamuñ ko ci man alors sénégalais yu bari dañoo am interrogation ci sa diggante ak euh, Viviane euh, tey mën nañ xam les véritables raisons naam bu fekkee mënoo ci dugg sax au fond euh, li tax ngeen tàkkale leen parce que ñëpp dañu kontaanoon gis la ci wetu Viviane mais le fait que gisatuñ leen loolu mu suscité ay interrogation fii kilifa yi ngeen fi xam yëpp am na ñu si joteeg seen i doom ak seen taalibe waxu Viviane indi wuñu fi mhm. loolu intéressé wu ma mi ngi ci sama gannaaw mhm. li ma intéressé mooy li ma kuccaa def mu metti ma te ma am ay doom ami mbokk am ay xarit mhm. man waxu Viviane ba ma ca paree teg ko ne laa ko teg ne man damaa bëgg xam Kouthia xëy na yàlla dina def ñu dem ba daje ci kanamu yoon mu wax ma lu ma yabee ba teg baatu giwin ci sama der bii mm. tem leer ko ne li muy wax ay duul la waxul dëgg day fen mm, mm, alors ban réaction nga njëkk am bi nga yeewoo gis audio bi audio mais sama kër na man ba ma gisee drapeau couleurs yi dama tiit LGBT bi quoi mais man loolu bugguma ko man loolu bugguma ko mais ci audio bi ñu ñëw ci ñu leeral dañoo dégg muy wax ne eh, bi ngay nekk ak Viviane ci tuuma yi mu lay tuumal boobu yaa ngi nekk ci buum di sëy ak sa jëkkër 3 mois nga dem sëyalil Viviane. mo yow loolu xam nga ne sax amul gannaaw loolu man daf may def reetaan réew mi même yi sax defe naa sëyuñ mhm. yéen da ngeen bë yéen yéen bëgg waxtaan mais xam ngeen ne fii giwin yi fi nekk sax sëyuñ amul benn giwin bu fi takkante mhm. te gis nga yow li nga xam ci giwin rek laa xam ci giwin mhm. da nga koy dégg doxagoo ba fekk ñaar jigéen yuy sëy ah li ngay dégg góor jigéen yëpp goo ba fekk benn góor jigéen muy sëy keneen xam dañ koy dégg mhm. Mhm. mais lu tax man ma war a tuumaal nit yi man en tout cas sama loxo ci kaw mhm. man ma loolu man duma ma giwin te kuy giwin mu leer ma man du ma la fréquenté ku ci nekk giwin na xam ne bëgguma ko nekk sama xarit bu yeboo nga nëbbu ma ko ndax bu ma ko yëgee duma la weer mais dama lay bàyyi mais ni ni ni toll ci accusation Amina Poté am tur am njaboot am ay doom nit ñi di ko seetaan ñu jékki-jékki teg la yenn tuumay sa kaw sa diggante ku caa yow lan nga naa def mais sama diggante Kouthia lu may def lu dul mais yoon attañu mais lii du fawekaay parce que loo xam ne daf ko wax ñu jël drapeau bu ma gën a bañ man man drapeau boobu eh. man drapeau boobu dama ko bañ mhm. man taalibe sëriñ Touba laa mhm. luy tilimal yoonu murit du jóge ci man mhm. man bañuma ko ma bañ de man tey mën nga ma xool duma la neex fii yéen ñu fi daje yëpp du ñëpp laa saf mais amul kenn koo xam ne ci yéen journaliste yi mën ngeen maa waxal dara fii nit ñi nëbbaluñ kenn mhm. Sénégal yéen ñépp ku ci nekk ngi moytu ndax bañ sa ayib génn mhm. je suis pas parfait mhm. waaye lii di ay xetu drogue lii di ay yëfu giwinantu lii di ay ay ñu ñàkk fayda am jëkkër am far ay taxawaalu ñu lay tëddee gauche ak droite loolu du man fii yéen ñi taxaw ñëpp bari na ñoo xam ne xam nañ ma bu baax bari na ci ñoo xam ne seen gannaaw caméra lañ ne ku leen joxoon micro ñu wax lii dama dafa ñaaw man sama yaay dafa gaañu bàyyi ma ak sama ñaari mag waaw sama ñaari mag yooyu yaru génn ñu tele waxuñ rajo am seeni njaboot lu tax man ma war a tuumaal seeni der est-ce que xam ngeen wax lu nit lu ñaaw nu mu mën a def ci fameem mhm. ku ci génn ñu naan la sa raq bi giwin la wala sa rakk bi góor jigéen la mais loolu neexul fii nag kuñ fi wax giwin a góor jigéen génnoo défendre sa bopp mhm. xëy na yaa xam lan ngay bañ mu génn ndax fii moom ku taxaw ne duma mhm. ñu génne ko mhm. boo ko nekkee dana génn de mhm. fii moom kaay ma wax la à yaa ngi fii mhm. xam nga lu fi nekk jàpp ci loxo nit wañ ko ne ko bàtt mu sedd dafa njaboot mais fii ku ne am nga archive man ku ko am génne ko li la li la pital tuumaal tey ñu bëri ñu ne ñu leen koy tuumaal mais ñu ko toog toogaale ko nag faale ko euh, comme mhm. mhm. euh, loolu mais loolu kiñ ko tuumaal génnul xëy na dafa dëgër rek. Mhm. mën naa am du mais yàlla moo ko may esprit dépassement te Youssou Ndour mën na dégg lu metti lu ne ci àddina mais liggéeyam mayu ko mu génn di wax mën na ko muñ. du yow dangaa génn rek doo loolu parce que da ngaa génn bari na ñu ñuy tuumaal liñ leen di waxal du dëgg ba pare ñu muñ ko noppiwaale ko ñoom dañ ko mën a muñ seeni doom miis ko ñu tàggat seen doom ci loolu yuusu nag moo yooyu muñ ndax ko am njaboot du la dëfal am ndey juy dund di la dëfal am bàyyi joo xam ne boo yëngoo mu ñëw taxaw am ay rakk yoo xam ne ponkal lañ ñi yow yaa yey dal ak sa entourage say xarit man aw ma ndey aw ma bàyyi aw ma entourage bu dëgër bu ma war a dëfal man li ma mën mooy di dëkk di satal sama dar ba keroog may ñibbi yow marxiyaam te wax naa ko démb ci télé. ma ne leen xaw ma ndax deux mille vingt quatre dina ma fi fekkam déet de mais lépp lu ma nit mës a def muy ronger sama xol te du dëgg bu yow marxiyaamee danañ ko la yoo te li gën a metti baalu nit mettiwul de dem baalu nit ki bala moo dee metti mais xam nga lu metti yàgg a waxal nit lu dul dëgg ba mu wan la gannaaw mhm. keroog ngay suivre les conséquences ci kaw suuf nit ki dem na tranquillement mais yow mi koy yàq ci kaw suuf keroog dootoo am jàmm te Kouthia nag dafa yàgg def lu bon yàlla da koy soog a weer ndax lii yëpp sax waruma ko woon def mhm. ndax yàlla daf maa fayul mhm. parce que yàggul dara la taxaw ci tele bi coowu jàmbur ñu dugal ko ci biir coow li mu taxaw en direct def yëfu góor jigéen di ma saaga en direct di ma wax lu ko neex ma muñ loo ko yàlla yàlla atte ñu mu dégagé TFM pour mu duggaat fa kilifa gu ne ñaan Youssou nduur pour ku Kouthia duggaat saraxu àddina bi yëpp la woo saraxu pour duggaat moom du rus ndax yow moom nee na moo ma indi TFM ci moom laa jaar ma doon li ma doon fekk ko fi presque trente ans de carrière doon li ma doon am li ma am ci réew mi njaboot ci réew mi kenn mënul xas sama njaboot mais moom tey nit ñi xamoon nañ na baaxul de mais tey ku ca xaslu na askanam parce que ay audio moo fuité te audio bu fuité weeraange suñ borom la lan moo tax mu fuité jigéen la doon doxaan kon moom kum takk dala fen ba takk la daf ma fenal ñu jàpp ko fenal keneen ak keneen du man rek la waxal audio yi 110 audio la sama bos laa coppati man ndax man sama bos moom a ñor 110 je m'en fous ci yeneen mais waaw man sama bos moo ma ñor mhm. man sama bopp laay défendre mhm. sama doom yi ñu ngi may xool mhm. dama leen di jéggalu ci yi ñuy wax seen yaay ak samay mbokk mais dama leen di wax ne leen ñoom sax xam nañ ma ñoom xam nañ ne man nekkuma ci benn nonsense ndax koo xam ne yéenay añandoo yéenay reerandoo kuy dugg sa kër xam na kuy génn xam na samay proche ñëpp xam nañ ma mhm. mais dama am ay soppe yu jotul ci man mhm. te toujours ñu ñu ne la sa soppe bi dégg nga ñu ko waxal mhm. kooku na dama koy rassurer na tëdd nelaw réew mii bañu ma ku ma xool ba jéppi ma mais kenn mënuma fee yàq ndax fi laa dëkk fi laa màggee te fii laa tekkee man am na yoo xam ne duma jël sama doom di ko teg lu metti pour mu baax man may déraper bu boobaa dina wéet ne sama yaay nii mu ma bëgg a yaree te melu ko pour lan doom mënoo koo yar te baaxoo soo bëggee éduquer sa doom dangay baax ba pare fii ñi taxaw ñëpp tey dañ bëggoon a wax mais man borom dëj bi mën naa ko jooy may wax sénégalais yi ndax ku wax lépp di nga wax loo warta wax fii rek laa yem parce que li ma denc bari na su ma bëggee génn yëpp dinaa wax lu ñu ma xeebe li ci des yoon laa koy teg ci loxoom mhm. mu lijjanti ko ndax dëkk yoon lañu ñu ne mais bëgg naa ñaan sénégalais yi mhm. lenn mhm. saa yu ma yeewoo ku ma bëgg di am naqar ci man maa ngi lay tuubal parce que bëgg koo xam ne xamuloo ko dafa metti ñuy teg ci daram yoo xam ne mënoo ko ko demantiiral metti waaye man nee naa leen ba àddina di tukki mënuma garanti sama benn mbokk walla sama benn doom mais man Seydina Muhammad xam ne ne musuma bon bëgguma bon te duma mës a bon ba àddina di tukki loolu rek laa leen mën a garantil man waxuma sama njaboot beneen affaire bi ñuy wax ci man nañ ma yërëm tuuti parce que jigéen joo xam ne laa ay bu ngeen xamoon li ma yenu jàmbaar laa de aw ma ndey man du ma victimiser waa ah. parce que mënal naa sama bopp yàlla laa àndal j'aime pas taxaw ci télé nan aw ma yaay aw non non non non su ma nee aw ma ndey mooy yërëm leen ma tuuti nag parce que lépp man duma ko attan ndax man sénégalais yéen da ngeen ma war a nag da ngeen ma war a jàppale nag parce que jigéen ju sàccul fenul naanul duggul ci benn nonsense saa yu ngeen yewoo teg ci sama der loo xam ne damay génn duulloo ki ko wax nela la kii daf ma jiiñ giwin ku caa moo taxaw jiiñ ma giwin day fen dafa fen ba takk jabaram fen ba am ay doom ndax audio yi génn yépp ku ko déglu xam ne audio yépp da cee kàcc da cee kàcc tey man soo ma nee Amina da ngay naan ma taxaw démentir ko mais Kouthia bu taxawee ne man du tux du ma naan man damay taxaw démentir ko ndax man ba ma ko fekkee Obama lu flag la teg di ko naan ah, day fen moom lu mu waxal nit rek mën nañ ko ko waxal Kouthia moo indi Ndiaye TFM mhm. moo ko jox naqar bu ko rey Njaay hmm? Njaay dañ ne dafa am problème mu foie. Njaay Kouthia moo ko teg stress su àddina avant muy dee ñi jege Njaay ñëpp xam nañ loolu fu Njaay toog dalay nettali li ko Kouthia def ba dee. Hmm? keneen ku nekk noonu loolu man xaw ma hmm. ndax li muy def ñëpp. Kouthia da ngay nangu ànd ak moom nangu woo jóge ci wetam. loolu lay dund. moom daal day bëgg nga nekk ci ginnaawam quoi. Kouthia moo ma indi TFM mais dafa dem ba supporteetul sama talent loolu moo indi coow li man nag ku caadu moo may téye wax ju ñaaw jii mu ma waxal moo tax ma génn na ma na ma na ma bàyyi na sénégalais yi ko jege wax ko mu bàyyi ma ndax man jotewuma ak moom dara ah. man TFM nii laa fa duggee te nii laa fay génne aw ma fa kenn xaar ma yàlla man nee naa leen duggewuma TFM promotion canapé musuma leen a tardeel musuma leen a leb musuma leen a ñaan duñ joxe edd ba ma bokk ci kon man nañ ma bàyyi tout tranquillement buñ bëggee jigéen ju ñu yàq wala ku ñàkkal fayda nañ ko wuti man damaa am ay mbokk ñun ñett lañ sama yaay ñetti doom la fi bàyyi may caat kon nañ ñu yërëm te xam ne ñun njabootu Fat Joolaa ñun amuñu ndey fi ne amuñu bàyyi nañ ñu bàyyi buñ jaaree ci man di ruiner sama famille bàyyi leen ma mais mais mais ci problème bi ah. Mhm. Euh, dañoo gis euh, ci ci compte TikTok bi ah. Mhm. ñu ñu ñëw ci euh, bi dañoo gis sa photo lañ fa def. loolu metti na ma trop ndax moom laa njëkk a kaas. sa photo lañ fa ah, loolu ki bëgg a yàq moo ko def. Mhm. ndax man li tax ma yem ci man kenn yónneewu ma ko. man dama dugg yeewu rek dugg si TikTok. di di seetaan di seetaan rek. yem si ñu ne Kouthia dafa dóor jabaram ba jabaram avorté. ma ne ah man de Kouthia donte musuma waxal jàmm. mais moo ma indi TFM sama xol sot. Mm-hmm. ma ne man damay liggéey lundi su ma liggéeyee lundi mm-hmm. dinaa défendre Kouthia mm-hmm. ma ne waaye bala ma koo defendre xaaral ma xool histoire bi nu mu demee ma gis ñu sama profil sama photo foofu ma dugg cliquer sama photo ne kii kat kon moom moom compte bi ma gis ni compte bu bees la loolu moom du gan ci yéen ndax yàgg ngeen gis nit yu ñu def profil ci TikTok mais naka laa def nii bëgg a xool histoire bi nu mu demee pour suba ma mën a défendre Kouthia rek ma gis drapeau bi ak sama photo mais ma déglu ko rek ku caa naan Amina ak Viviane sëy nañ trois mais kii kii fenkat la mais dama dof ba ma déggee loolu yow laa njëkk a woo mais loolu nu ko nit di xalaatee mais man waxuma la jooy mais sama doomu yaay yi nga xam ne seen yaay dafa dee ñu yaakaar ma seen doom yi yaakaar ma di ma tiitaroo mais mais mais ñoom mais moom mi ngi yàq famille jàmbur mais Kouthia na arrêté yu bonam yi muy def lii nag duma ci avancé fii laa koy yemale dinañ jàkkaarlook yoon ku caa wax ma moom man lu ma ko def ak lu mu ma yebee ak lu mu ma mës a xamal ndax nit ki bu demee ba xamalatu la dara di la fenal boo ko arrêté wul mën na laa rey mhm. wasalaam maa ngi jégalu ñëpp